li si yéenekaay yi wax feeñ la ñuy wax de yéenekaay bi naan masque yaa ngi wadd benn par benn ngir waajal élection présidentielle 2024 Sud Quotidien naan ma Idrissa Seck de ma nga ca fa ñuy falee gor ya ma nga taxaw temm ba tey ji réew mi Quotidien naan xaaral ma ñëw fa mel ni sa Seck de candidat la lii di wane ne Benno Bokk Yaakaar nar nanoo am ñaari candidat Tribune yéenekaay naan sa Seck de mën ñu koo wooyee kenn bëggul ndax moom Idi ma nga ca biir président Macky Sall gaaya naan bëgguñu mu nar a bàppeeku ca opposition bi fazalika gars yi naan ko déet déet déet du fii demal demal yéene kaay des médias naan Idrissa Seck dal di ne bàyyi président Macky Sall las yéene kaay bi naan déet déet maa ngi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ba tey de turbine yéene kaay bi naan loo ci mënta dégg bàyyi nga président Macky Sall mooy dëgg coow li coow li mooy boo sampee sa nënd ba noppi loolu kay mooy naroo jàppale kii di président Macky Sall ci beneen candidature am bi mu bëgg laaj bi ñu samp mooy njiital conseil économique social environnemental gannaaw bi nga xamee ne jàppale woo président Macky Sall ci candidat candidature am bii réew maa ngi laajte ndax Sall ngaari fa koy dàq moom ak i ministre am ci réew mi wala turbine yéen kay naa ne coow la ca pinduma teen ma gaayu amul baag la moom Idrissa Seck nee na candidat la coow li mooy ay résultat am ca Thiès mbaa xool nga ko lii xale yi di wax naan mbaa yaa ngi xool la gars yi naan ko Idi dama xooli waat say résultat soo paree soog a ñëw continuer sampat sam ndënd ndax nag ay at a ngi nii Thiès moom dara naada dara amu njiital gëm sa bopp Mimi Touré ak waa yeewi askan wi fa ñu jàppante booloo ngir doon benn say te loo ci xamut ña nga naan candidature président Macky Sall du fi amee moom la ñu bañ fépp tëdd ci suufa te naan troisième mandat du fi amee ay Aïssata Tall Sall ci Vox Populi naan da ngeen ni foo rek bàyyi leen waxu troisième mandat te wax ñaar te président Macky Sall moo koy am fii ci réew mi Bougane Gueye Mimi ak yeewi askan wi naan président Macky Sall du fi samp ndëndëm ci présidentielle yi ñu jëm yéen kaay bi naan jàngale katu républicain yi neneen ñoom àndee Macky rek Macky rek loole nag tax nañu amaloon na ab ndaje joxante woon loxo foofa a si soxo xumma naan ñoo te lu ñu président Macky Sall wan doy nanu te ñun lu soxal njàng ak njàngale mi rek moo ñu ñor yéene kaay bi naan dàq ginaar waxaale sa soxla may mun a si soxo xumma mi ngi naan ne nu booloo bàyyi xiiroo bi ak ŋaayoo te bàyyi par parlanto bi te jàppale président Macky Sall ngir mu amaata ndam Abdou Mbow ci yéene kaay mi ngi naan moytu leen candidature yu bari source a dal di ma xamal ne candidature yi de dee mi ngi mel ni tulle ak màlle ndax Idrissa Seck takku na ba dëgër Déthié Fall pare na Aïssata Tall Sall ma nga naan damay jàppale président Macky Sall coordinateur régional bu AFP ca Thiès ma ngay xamle ne Aliou saar bëgguñu lu dul mu nekk mam ma du Ibra Kane boo moytul mu ne saraax si élection présidentielle yi 24 heures naan beneen candidat bu yees de mu ngi ñëw di wuyoo ci turu Al Assane Niang mouvement njiital wareef ñoo ko ngemb ci week-end bi mouvement njiital wareef boobe kay mu ngi naan ñu ne ci wàllu social daal ñooñu soxal te si la ñuy dox ubbi l'observateur mi ngi naan Ousmane Sonko de candidat la waaye Sonko de fa bëri ay feemu politique am ndax nag fay waxee foo xam ni askan wi fañ koy jox nopp débat bi di gën a yàgg askan wi di ko gën a gëm docteur Ndaw naan attention mën ngaa détourner opinion bi de te mën nga caa am ndam waaye nag ndam la du sax sursu aanaan réew mi mu ngi jax-jaxee ki candidature bopp si li naan loo ci mënta dégg daala maître Moussa Diop ma ngay njortu ne ab diir bu mag moo nekk ci diggante Abdoulaye Wade Sall libération naana ginnaaw coowal élection présidentielle coow lu jëra coow mi ngi nii moom MCC ndekete yoo ay mbokki taalibe moo ko pendre maanaam yeew ko ci buuma ak i ñaari naataangoom ñoo def li ni mel dañu koo takk mu mel ne dafay xaru ndekete yoo loolu amul te ñu tolloog moom ñoo def li ni mel moom MCC moom ay atam mi ngi tolloo ci fukki at ñett ak lu ci mënta am daal yal ñu yàlla defal jàmm